am ñu koy sa tée ko loo dugal loo ko jël ñu ne la dollil kooko di kan ki nga xam na que dafa xew xew bu yàgg ba pare euh, kuy séntu mu jëm ginnaaw mu continuer di jëm kanam muy dem kanam ba ñu bari bërgël ko nag xam ne nag lu ne mën na nekk ndax yàlla mën na sàmm jaamam kooko di kan Serigne Ablaye Diop xaas xaas di tekki këram kenn du fa dugg di kaas ñaanu kaas ñaanu xaas xaas mooy laas sëñ Abdoulaye Diop xaas yaa ngi ci Tektal TV sa tele yaa ngi ci émission Tektal sa émission àdduna war nga këpp di la seetaan ñoo xam ne que buñ la seetaanee pare danaan kii de daa mel ne mën lay waxal kii de dafa mel ne dafa dugg sama biir yaram ñii di la gént ñii di kii yooyu yëpp loolu ñu àdduna war nga këpp bi lay seetaan di la bëggee. di santaat yàlla di julli ci yonent bi. di ñaan suñu borom defal ñu jàmm ak tawféex di ñaan ñi tawat yàlla wéral leen te xam ni buñ sañoon. kenn du feebar bay faj waaye nag suñu borom a bind nit bind tawat kon nag di ñaan rek yenn tawat yi diis yàlla ñu ko yàlla teggil yàlla defal ñëpp jàmm di leen gërëm yenn waa Tektal di leen waxaat bismillah ñu ngi leen di dégluwaat jërëjëf euh, sëriñ laa Diop xaas nekk ci parcel rond kaas ba Tektal bii nag gis nga mën ngaa dem ba dugg ca kër ga te doo woo si di wan doo woo kenn di ci sonn doo woo Modou Ndiaye doo woo kenn mën ngaa dugg ba ci biir doo woo Aliou Afia. Ah. ñëwal sa bopp ca kër ga. boo ñëwee ba ci rond point kaas ba kaas ba pour ku dëkkul Dakar kaas ba du be ab kaas bu ni naane bu rëy boo xam ne déedéet. Hmm. kaas ba ab rond la boo ñëwee ba ci rond kaas ba ñëw bu dee da ngay jógee biir dakaar di ñëw si parcelle sa càmmoñ ngay féete da ngay jéggi tali bi rek dugg noonu ci boutique orange bi bi ñuy wax boutique Soxna May da ngay dem koñ sa càmmoñ di boo demee ko doo dox lu tolloog 10 mètres di nga gis benn kuy jaayi daal ak foofu benn bayal miir bu rëy fu mu jàkkaar lool téer bi kër googu mooy sëñ am foofu mooy sëñ Abdoulaye Diop xaas di nga gis nit ñi ñu wan ne la mii nii bis yam fay nekk nag maanaam altine rendez-vous privé lay doon Malika ci de maanaam xeetu noppalu gi lay dëppool dimanche rendez-vous privé lay doon Malika euh, mercredi léeg-léeg dina xëy léeg-léeg mu toog Malika jeudi samedi Euh, ak dimanche jeudi samedi ak mardi. Mhm. moom lay nekk parcelle. vendredi mhm. tamit day nekk Malika. Mhm. bu dee Malika nag rendez-vous privé la mooy ku wulul sa bopp bu fa dugg foofu la lay recevoir yeneen yi nga dem xat-xatloo ji fee bu dee da ngay fanaan sax yaa xam. sëñ Abdoulaye Xaas bu dee Malika la nag station tali bu xonk koo ko wax ci àddina xam na ko ku dëkk côté yëmbal. mbedd bi mu jàkkaarlool am na foofu ay kalandoo koo laaj ko sëñ Abdoulaye Diop xaas mu la ko. boo taayee laajte mbedd bi mu jàkkaarlool boo la neexee bi topp ci station bi te am porte lampe bi. nga yéeg dugg noonu boo wàccee montagne bi rek kër gi féete la gauche dàq ci koñ bi nga xam sëñ am laa jox xaas moo fa gën a siiw sax maire ba lii daal mooy mbirum xaas war naa leen programme bi bindal leen numéro yi mu ngi nii 77 101 21 57 77 101 21 57 beneen bi 77 262 52 95 77 262 52 95 beneen bi 77 815 55 98 77 815 55 98 Serigne Ablaye Diop xaas nekk ci parcelle rond point Case ba nga fekk ko fi discours soxla lu mu ci mën mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla moo xam tëlewul dara te mën na lépp. Mhm. Serigne Ablaye Diop xaas. Mhm. te damaa bëgg ñëw na nga ñëwaat ci wàllum saraxe yi. Mhm. saraxe yi nga ne nit ñi nan ko moytu. nit ñi nañu moytu rey. nit ñi nañu tey ci sarax nit léeg-léeg dina bëgg tukki saraxe sondeel sondeel ba fay mu taxaw. dootul dem nit dina gént rek di te loolu waru ko. léegi dama bëgg ci wàllum sarax li nga nee sarax nañ koy moytu ndax nit ki jékki-jékki rayum xaram saam ko juróom-ñaari saam saraxe kooku ci la bokk ki jékki-jékki rayum xaram war a bëyam dem togg kër ga nit ña lekk mu togg ci la bokk wala kii nga xam ne que day tiit di saraxe wala xeetu sarax ak ray bi booy wax nga ko kii pour moytuwaat lan wax liñ ciy bàyyi xel ñaar la xam nga sarax bi ngay génne mhm. yaa di pour par exemple bëgg loo bëgg dara sa kër da ngay dem ca daral ba mhm. fekk kay jaay ngeen ko jaay ma xar jaay ma xar yam ci yam ca Mm-hmm. waaye jaay ma xar mu ñuul mm-hmm. nekkatul kon looy lekk pour sa waa kër mm-hmm. jaay ma xar moo xam ne ñaari tànk yu nduroo kon bokkatul jaay ma xar moo xam ne dafa xonk cur kon bokkatul bu ñuy wax sarax dëgg maanaam day da ngay xool ci biddewu nit ki parce que des fois li tax nit ñi mat fee teew mooy da xool tay sarax ñaata problème la indi jamono bi nga gis nit nekk ci xat-xat ñu loo ko sarax mu gën a sonn te imaginer ñi lay woo ñëpp fi ñu jaar wax nañ la ko ñi lay woo ñëpp coono bi ñu nekk wax nañ la ko pour wax la kon ci mm. sarax mm. mën naa kéemaan gi mu kéemaan maar day taal yi daal mm. du du du sarax yëpp nga war a génne mm-hmm. bu namu yàpp nag dem jënd ca daral ba yàpp ma dama koy def mm-hmm. def sama frigo lekk ko dama koy def mm-hmm. waaye jaay ma xar moo biir ba daa ñuul kon nekkatul xar mooy lekk kese dama wax ni jinne du lu ñuy neexal cent pour cent kon léegi sarax Mm-hmm. kon loolu mënatul maanaam mënatu cee mënatu cee basé wu ci côté boobu comme mm-hmm. jàpp ni lii wàllu sarax la mm-hmm. parce que nit ki li muy def jël ci ay mbiru boppam ay comme lii rax na lii raxul jinne doo ko neexal pour lan rek parce que jàpp na ma parce que toujours damay wax ni li nga gën doo ko neexal li nga gën doo ko tiitaroo mu ngi mel ni tey te nee nga am yëngal rab rek waaw non fajuñu ko xam nga seex. man rab moom bu ñu ci tukkee tey dafa am lu ma loo xam ne ci kanam laa koy wax. waaw jàpp leen rek seetaan tegtal ci kanam tuuti ma ñëw ci. waaw mhm. xam nga rab. Mhm. dafa nekk loo xam mais àggale ci li nga doon wax ci sarax yi ba léegi. Mhm. lu mel ni sarax. Euh, par exemple tey boo demee. ray bi nga waaw waaw ci laa jëm boo demee. cib sëriñ mu xool jinne ji feeñu. feeñu ko ci ginnaaw déet kii ma daf may dal. ni la léegi pour ma bàyyi ko lii ngay def. léegi yow sëriñ ba nga tiit ci sens yi ni ko defal loolu mhm. wala yow la la jinne ba sant ba jàpp kii moom la la sant moom nga génn lu loolu am na njëriñ justement moo tax léegi xooli ñu koy génne ñëpp dañoo nekk ci difficulté mais Europe ñaata nit lay woon naa la damaa rey bëy bu ñu rey xar rey kii damaa far gën sonn amatuma dara gën a kii ñaata nit lu dul benn du ñaar moo tax man mani mhm. képp ku ñu reyloo beñal sëriñ ba lay reyloo firigo ma nga fees dell yàpp boo xoolee léegi moo tax sëriñ si ñu ci bëri gisoo ko ay biir lañ yor ah. ndax lekk yàpp rek naan soow <laughs> léegi ah, moo tax mm. parce que tey bu ñu rayee suur ba nga jël yàpp bi def sa firigo ñu la ci toggal ndékki añ reer mm. léegi ka jënd yàpp ba moom jëriñëwu ca benn la ko sonal la koy gën a sonal kon moom yooyu nekkuma ci mm. moo tax damay wax ni képp ku ñu reyloo beñal waxuma nag sarax yëpp a bon xam nga nit ki war nga xam ni lii sarax dafa am solo ci nit Euh, cat lu muy bon bon sarax da koy teggi rab lu muy bon bon mën nga génne sarax boo xam ni boo defee nii day dem exemple am na ci koo xam nii rab bi ko jàppoon day kilifa kilifa goo xam ne par exemple boo déggee rab bi ko jàppoon day kilifa mooy pour mu dem ci sëriñ rab bi taxaw sëriñ bi xam ne lii rab la du ko mën am mm. parce que bu koy seet rab bi day arrière léegi nga ci sëriñ bi gis loolu fekk euh, xoolal image lu ndaw li laa wax de mm-hmm. fukki neen ak juróom moom lay dem jënd neen yu weex. def ko ci ndox waxuma nag nit dem def ko de. Ah, rab rab bi ko jàppoon waaw xam nga da nga koy wax nag nga gis ko rab jàpp mu ne xaaral ma def sarax bi. waxuma loolu déedéet musiba sax la koy jural ah. parce que sarax moom. Mm. ñaar moo am àdduna bii moo am wala mm. nii. Mm. parce que boo defee lii mu wóor ne lii du la def njariñ ci yow da lay sonal. fu ma ne ko utal fukki nen ak juróom mu ut fukki nen ak juróom ma ne ko def ko ci ndox mu def ko ci ndox diw ci yaram bi diw ci nen yi dem géej sànni ko boobu la tàggu rabam te rab bi kilifa la woon 100 pour cent te sànq mu ngi doon rey rab bi di koo gën a sonal pour wax la ñun des fois nga am ñoo xam ne bu ñu ñëw ci yow du ñu ànd ak rab bi mhm. rab bi day arrière moom kese mooy ñëw léegi nag rab boobu pour nga jàpp ko day jafe mhm. day tax ñu def suñuy mbiru bopp mhm. def suñuy mbir ba xam ne lii lañ man a def pour téye rab bi dañ koy def génne loo ko sarax te duñu leen reyal wala defal la defaloo yow mais sëñ Abdoulaye Diop Khass rab moom dama ci yaatal bu baax sax mais balaa ma ciy gën a yaatal euh, est-ce que nit ñi duñ la tam ñi lay gént gént yu bari yi di ma bëgg a rey sëñ Ablaye laa gént kii damaa jël jaaram bi di ko gént mu naan ma nii ni leen dina baax kii naan gént yi lay gént am na koo xam dafa dem ba ne ma sëñ Ablaye boo xoolee émission bi day mel du kenn nit ki fii day mel nii fii mu mel nee ma bëggoon xam tamit yow waaw loolu loolu lan la waaw léegi nag loolu yow mii la ah yow la de déedéet man la <laughs> xamal la waaw ba ma la koy wax du tey <laughs> ci début ba la ci début ba laa la ni mm-hmm. nit ñi nañ def attention mm-hmm. bu yàgg bu dul dara dinañ ma tam. ci mm-hmm. kanam du wax naa la ko parce que ni la képp ku may génn rab mën nga tëdd gis sama jëmm. Mm-hmm. waaw kon kay buñ ma tamee yow la. yaa ma depuis caméra ma wax. <laughs> léegi nag yow indiwaatal archive yooyu teg ko. non kon boo duggee Tektal TV. wala Tektal TV Sénégal ngeen xool émission yi yàggee. waaw lépp lu sëñ Abdoulaye Diop di wax démb rek. di ngeen ko gisaat foofu bien sûr bien waxoon naa la ko. Mm. parce que tey am na ci koo xam ne Allemagne la bu ndeysaan tiit. yow sax defe naa ne wax na la pour ne mm. dama gaa gént am lu ñëw ci moom mm. mujj sama ba mu tiit ba mu tiit maa ni ko du dara mais li ci ëpp important lenn rek la mm. xam nga bu fekkoon man ba ma la ko wax au début xamoon naa lii la cheikh métier sëriñ du caaxaan du caaxaan sëriñ kenn du ko café sëriñ kenn du ko fowee gis nga tey bëri na tey sëriñ soo gis ñu dee dee gu kaw wala ñu ngi yëg seen yaram loo xam ne dañoo forcé loo xam ne nekkul ci ñoom bëri na sëriñ soo xam ne tey nii may waxee yow rab moo tëj seen wërsëg Ah, te ñoom ñu ni dañuy faj rab ah sëriñ bu daanu rek bu dellu saako yi li jëpp raba leen di kii bëri na sëriñ soo xam ne nii may wax géej naa ko ci alxuraan a tëj seen wërsëg tëj laax te tëj mm-hmm. li gën a yomb xam ne sëriñ moom mm-hmm. eh, bu jàppee nit bu dindi ko lu yomb la man gis naa sëriñ soo xam nii may wax ak yow raba tëj seen wërsëg di leen leeral foofu nag mas naa fee def ak émission sëñ laa Diop xaas naan ko sëriñ siy sox ndax mën nga ci dara ñu faj kooku mel noonu kenn ku ne bëgg koo jàngate nu ne demewul nen dama bëgg a wan ne ndax comme moom day faj ñu yori puus-puus ah di faj ñu yori beeke ñuy dox ak yu meloon ndax mën na ci ñoom dara bépp sëriñ bu mu mën doon muy ku génn télé ku génnul télé taxaw maa wax mhm. damaa wax en manière générale nag nit ñi nag mu ne leen ko gisee mais pour wane leen foofu laay waxee moom it day wan ne képp ku nekk ci métier bi mu nekkit boo ci jaaxlee mën na la cee dimbali ndax mhm. lan la mhm. sëriñ nit la comme ku nu war a dimbali la mu war kii bien sûr dara ci man manu sëriñ te sax euh, ñun tey ba dee ba mën a am soxla xam ne kii mën na ci dara waxuma ko kon li ñu woote du dëgg ci ñun mais nag problème boobu la ñu am tey bëri na sëñ toom tey nii may waxee la ko wax barki yonent yàlla Muhammad euh, bëri na sëriñ soo xam ne tey nii mooy waxee ak yow nii xam nañ ni ñëwoon wala nawoon démb melul tey melul tey mais rus nañ ko sax wax léegi nag da ngay toog ba loru ba bâtiment wàcc sa kaw ba mënatoo jug nga bëgg onk kenn du la dégg la dégg nga jóg nga am tànk justement mais lan la par exemple tey wax naa la ko waxati la ko waxuma ci beneen cadre mais li mm-hmm. gën di ëpp lu muy sonal nit rab jinne extra mm-hmm. wallahi barke yonent bi suñ suñ ci doon def concours mm-hmm. suñ ci doon def concours dama leen di bàyyi journée la mu ñu nekk ñu jëf ñu jëf man ma ñëw benn trente secondes nga ba vingt trois heures cinquante huit nga jëf benn trente secondes barke Seydina <laughs> Mouhamad laa la giñal dama woor benn trente secondes ma def leen ma ñëw wan leen ni xoola bu leen neexee par exemple man ñoom ñooy indi ñu leen soob man ma toog fi ma toog ñu def ba ku ci nekk bu la neexee waxuma sax jàmbur buy dox nii rek nañ ko jàpp moo leen ni rab fu ne nekk ci nit moom ne yàlla dafa ñu ni dañ naan jàkk nit xam ne rab baa ngi toog ci ñu ñu ni waxee yow rab baa ngi ci ba mu génn même di nga ne moom rab a liñ ko def lu dul benn mais moom mënoo dindi rab téléphone nit Amérique muy yuuxu kii xam na ci dara mm-hmm. ci wàllu téléphone rek mm-hmm. pour wax la tey ko am rab sax su ma nee alors nga gis mu yooxu bu wax la maanaam tey foofu ma dama ci ñëw sëñ Abdoulaye Diop Khass nii ñuy defee nii émission bi Tektal TV la ñu def émission bi ci biir fii am ñoo xam ne que ay soppee ab Abdoulaye Diop Khass lan boole maag xaas boole maa kii ñu mel noonu guddi na nit ñëpp yëpp nelaw nan xale yi sax nelaw nan guddi na ñu ngi def émission de moo woo ko ne ko ah sëñ Abdoulaye de mi ngi fi nii ñëw fi gaaw mu ñëw kenn ka dem ànd ak keneen bi ma kenn. ñëw ma ne ko non am na keneen ku muy waxal de taxawal ni tuuti rek mu dugg diggante bi ñu woosi ma ne ma Cheikh nu ñu ne ma daanu na ma ne nga ne lan te maa ngi ci biir ma ñëw ak si xàmmeetuma moom ci boppam mu absenté sëñ Ablaye man la bàyyi woon may wax ak moom maa ngi ko foo jógee mu naan Guinée Bissau xam ma man naan ko noo tudd mu naan Michel muy kii xam ne ka ñii taxaw naan jinne bi lii dafa yomb ba xeet gu mel noonu bii moom man jëxëran man sama bopp man maa doon posé question yi sëñ bi laa joxu ko ndox këpp ko ndox joxu ko garab joxu ko sunguf moom daal nii muy taxaw ni dugal loxo bi ci noppi nii kii ba fii may wax ak yow yàllaa ma tiim damaa woor yàlla xam na fi mu toog ne tekk mii ngi ne toog ne teg li dox suñ diggante matul sax ay met te ki mu àndal fii la dëkk derkle maa ngi koy nuyu tàkko mhm. xam nga mënumaa sori ci biir kii parce que sutura la nit ñi bëgg bi may man maa naroon filmer sax ñu ne bul filmer léegi sëñ Abdoulaye Diop Khass comme mu leer na ma kii xamoo ko xamu la dèjà man la xam man la xam ku ma xam ñëw ni directement nga xam ne que du lum waaj dara ba fii nga am noo jëflanteeg moom ba ma nga nee nelaw fi mu nekk. man waxuma waxuma waxi kii. waaw xam nga. kon yow maanaam li nga naan garab yi du mbir yi. déedéet foofu déedéet xam nga Cheikh. Mhm. bu dee garab yeeg mbir yi. Mhm. fu la rab jàppee fu garab nekkul foo jëm. Mhm. tey su ma doon defi tournée. bu weesoo xeetu ndomba yi may def. bu dee wàllu lu may fajee rab. jinne mën naa gii giñal ci yàlla du ma yóbbu garab. dégg ko kon waa Europe sañam ngi ñëw bu ko neexee bañ a yóbbu dara. jàkka mm. ndox bu fa amee. Mm. su ma neexee faj ci bu fa ndox amul su ma neexee faj ci. Mm-hmm. pour wax la sunu borom xam-xamam kenn du ko natt fenn. Mm. dégg wax bi deuxièmement pour nit ñi yeewu ci loolu moo tax may wax gis nga tey sotti nit rab mu yuuxu tëbit sëriñ ba tëb tëb moom it mu tëb <laughs> sëriñ ba yuuxu mu yuuxu loolu fajul rab loolu sax noonu pour wax ne yàlla seede na ko yonent bi hmm. pour wax la rab bu la bu la ñëwewul boo waxee ak moom sax da lay dégg génn lay dem te ba àdduna tukki du fa jaar parce que xam nañ bu fay ñëwaat nga koy lakk comprendre nga hmm. wala lu ndaw rek boo ko defee lakk ko ba mu yëg ne lakk nga ko mu ngi mel ni nit koo jël loxoom teg ci gazam kii yaram simple nga yor wala comme baaraam yi nii baaraam yi nga yor yaa laa yor seet mu ngi nii juróomi baaraam laa yor comme yi ah yor dégg nga. Uh-huh. léegi boo xoolee mu ngi mel nit koo yëkkati loxoom. Uh-huh. teg ci gaz bi mu lakk. Uh-huh. nga ni ko waxal wala ma tegaat beneen bi. lu muy def. day wax balaa beneen bee ñëw pour jàmm waaw la rab mel. mais sëñ yi am lu ci nekk. seex comme sa xef yi rek. ah dégg nga mu mel rek la ah, ah, ngeen nekk rek lépp mu gën a yaatu bu baax a baax xewal dëkk loraange nag. Hmm. sëñ Ablaye Diop Khass dañu bëggoon nag may la diggante bu xaw a kii nga tënkal ñu leeral ñu ki dund ba deux mille dix neuf deux mille vingt xamul ba xam rab a ngi ci moom wala rab bi day soog tàmbali wala yàgg na ci moom xamul mooy kan si ñu rab nga wax ci loo xam ne ko bukk tëg li nga daa loolu leer nañ xoolee boppam rek xam ne moom mii la sëñ Abdoulaye Diop di xaas di waxal si ñu rab wax danaa waxati suba nag téeméeri vidéo génn wax même chose hmm. ma ci met kon ñuy piraat piraat leen rek kuy piraat mën koy xam nga ne loolu mën ci ñàkk <laughs> mais maa ngi wax mais kuy piraat nag na nga def Tektal TV Sénégal nga dugg foofu nga pirate nga def Tektal TV. dañuy pirate mais dañuy pirate demaat feneen ni rab duggee nii la bu la duggee nii la bu la duggee mm. dama lay dinaa la ko wax. dinaa la mm. ci wax lu am important nit ñi di ci bàyyi xel. Mm. parce que dafa tas àdduna léegi. premièrement fi ñu njëkk a taxaw mooy sëy yu bari yi tas. sëy yu bari yiy tas. dégg ngeen ko sëy ba jotewul dara xeeb may ma baat bëggatu laa gis. benn lu ndaw rek bëggatu laa gis wax des fois nga gis papa ja toog waa de papa ba doy na doy na papa ji boo xoolee sa doom di nga xam ni kii àndut ak sa doom hmm. des fois nga gis ko papa ji naan doo déglu wala du nangoo sax déglu parce que boobu rab baa koy wax loolu hmm. nga gis góor boo xam ni même chose hmm. day jeg jige jabaram xol bi du neex dara dara dara bu génne ci mbedd bi jël téléphone ba comme mun njaay di woo ndaw si xol bi féex xam loolu dafay non moom côté yooyu laa koy féetale. parce ah, que guerrier la guerrier la waaw. bu dee comme comme comme Sidi Wane. Mhm. un jour jabar ji dafa dafa am jafe-jafe. Ah, mu jabar ñi am jafe-jafe. waaw non un mhm. pour wax la dama ci wax exemple. waaw joxe exemple. ba euh, ma ñëwee maa ngi fekk Sidi jël garab gi. Mhm. diw ci yaram ba mel ni kay guy simb. <laughs> mu ngi ndax jaaxle boobu euh, fekk boobu man dama génnoon defe naa. Ah. bi ma ñëwee fekk fa jabar ji. ma ne ko si lii la mu ma dama ko diwoon affaire pour mu bàyyi te lam ko diw taxul mu bàyyi. te pour foofu mën nga ma ci may 30 secondes ma wax. waaw yéen nekk Kër Sëriñ. waaw jékki-jékki jàpp ne ñor ngeen. ba xëy ne gis ne mbir mi dafa yomb xaaral ma dugg ci dem beru jéeg yu mel noonu. la ngeen dansé bi mu wax jëm. Sidi Wan bii bari na sëriñ yu mu gën a siiw te gis nga ko moo diw ndaw sa ndaw sa ba mu sonn. te jëriñu ko dara sëriñ su mu gën a am sax xam-xam. waaw ci côté boobu. waaye mën naa la gis yow gis nga mu diw bi dama dama ko mu ne ah dawaa diw te xam nga même li mu def laa def. Mm. mais kee da koo laal rek jug te moom bi mu ko defee tànk mënut a wàcc ci suuf. Mm. exemple boobu laay joxe. Mm. parce que man sama jabar. Euh, rab sonaloon na ko ba. jóge na ci étage daan avant mu koy takk. lu nekk coono bu nekk daj na ko. ah mooy ki doon seetaan bu ñëwagul justement waaw justement. te ñu joxe numéro am ñu joxe numéro ci tegtal. def lépp même chose moom ci boppam. Mm-hmm. léegi da ngay imaginer un jour bi ma ko takkee man mii di wax te tëdd ba guddi. mu jël paaka xam nga loolu mos naa la ko ci émission naan la léegi ku ci tëdd ak nit forset paaka ak lépp génneel nga dem tëj déet hmm. génneel wóorul parce que nit ñi dañuy soppeeku nu leen neexee hmm. billaahi man maa tëdd ba guddi gis mu xàcc paaka ci loxoom te boobu nekkatul moom hmm. te li tax te li téye loxo ba tey xamu ko de man mii di wax ak yow bi ma jógee lu ma rab bi wax am nga sens am nga sens bis boobu la tàggoog moom ci côté boobu <laughs> pour wax la c'est man la ñuy def lii kon keneen ak keneen ak keneen tey imagineel su ma su su su paquet boobu wàccoon lu ñuy wax rey na jëkkëram. rey na jëkkëram. foofu laay waxee toujours moo tax bëri na yii am dafa mat a xool. jigéen bu dee bu meree. amatul sago nga war xam ni kii am na lu mu àndal góor it bu meree sànq gisul direct am sago nga xam ni kii am na lu ma àndal kon nit ñi nañuy bàyyi xel côté boobu góor goo xam ne tey ci circulation bi tàng jër duñ mën a muñal dara loolu rab bokk ci wala waaw yow gis naa nga def ko tey ah. loolu kon da ngaa am rab de si <laughs> gis daal tey nga dama doon sama nit nit ki nag mënul yor ran su bu mel benn melokaan bi man moom affaire lu ma dawal baax na mais nga dugg ci oto yi meloon seen ku xaw mel lu soxor mel lu ko bëgg a xuri eh, damay wane sama bopp de boobu loolu damay merloo léegi mhm. kon côté boobu am na wute tuuti mhm. euh, boo toogee ci tàngaay ba boo toogee mhm. nga gis nit Cheikh sawar bëgg liggéey jékki-jékki bëggatul gis nit ñi day wéet rek di wéet rek di beru rek di beru soxlaatul dara ci àddunaam nga war a xam ne loolu yaa quelque chose nga gis nit koo xam ne lu ndaw day toog di jooy boo ko defee mu jooy boo ko deful mu jooy nga gis nit koo xam ne tey par exemple wallahi dafa fonkoon jaamu yàlla lool léegi boo ko nee sax mu mer. xanaa xam am na ñoo pour ñu tari Faatiha mu àgg sax mënatuñ ko. parce que def na barab loolu nag du rab bi dafay dëgg mais day sol ngelaw ci sax. nit ñi nañ bàyyi xel foofu loolu boo déggee diw ngelaw a ko jàpp en général ñaari façon ma da nga dox daje ngelaw boo déggee ngelaw ngelaw bu nga dugg dajeel bu dee jinne la kon jàppale jinne bi mu ci yow mais bagage am la bàyyi dafa mel ni ku taal telem yor commande am heure bu ko neexee lay taal heure bu ko neexee lay fay justement côté boobu lay defee moom bu dee rab da ngay gis mooy ki xam ne yaram bi day sedd tànk yi di sedd kooku rab la mais foo gis tàngoor mu naan sama yaram bi day tàng bay ñàkk kooku ngelaw jinne la ak jinne ko solo dégg nga wax bi kon am na wuute tuuti mm-hmm. ñi ngay fajee rab ñi ngay fajee jinne bokkul mm-hmm. kii ngay wax nii rab moo ko jàpp mm-hmm. mais bu doon du demee nii bu doon jinne bi ni ko faj mais ay duma lañ koy faj ay duma amul mën naa koo dóor rek mu bàyyi mais damay gis affaire di wàcc di wàcc di wàcc ba mu demee ba mel luy àgg ci tànk yi rek mu libre ne tekk na waaw mais nag gis nga nii mu mel nii mm. boo ko joxoon garab ah. boo ko joxoon garab mu gën a say boo fa nekkoon di kii day gën a say mm. parce que da lay wan ni rab fu muy sayee du caagi ne yaa ko man de uh-huh. mu ngi lay wan boppam yaa ngi koy wax mu lay tontu kon kooku dalaa yëpp <laughs> <laughs> sa doom booy wax mu lay tontu nu mel justement moo tax man wax ji bu nar a bëri mën na génnal dem bàyyi jàpp parce que sànq mu ngi tontante yow mën na ko af fii ba suba bu la respecté xam fan ko koy xam nga di ko génnal jaaral ni mu dem nga nga nga gis mu nii nii ca tànk yi dem borom daal di nelaw dootul xam fi mu nekk kon kooku la respecté mm. waaye hey yow Cheikh foo dëkk fii kon kooku respecté loo wax mu jokkalante la amatul njëriñ def laa jox xaas xaas daal xam naa mi ngi may jat bay boo nga kii ñi seetaan ngeen may ñaanal question yi ma bëgg dugal sax luy wax moo tax ñuy taxaw naan ma Cheikh bu ko dagg del déglu del kii damay am lu ma téye war koo wax moom maîtriser li muy wax bu noppiwul dama koy fàtte bu ma ko fàttee nag après émission bi jeex mooy loolu may réccu naan li fii lii waroon na fi dugg ak lu mel noonu sëñ laa jox xaas li mu bëgg xam nag mooy jamono ji lii ay rab lañ koy jiñ wala rayante bi mel na tulleeg màlli viol bi mel na tulleeg màlli dajji banque yi mel na tulleeg màlli xeetu xaru geeg xeet googu daal nga xam ne que deret daal bari na ci dëkk bi di tuuru temps yi ba nit ñi tiit naan lu xew ak xale yi ni sàcc xale yi réer xale yi nappe xeet boobu métti na daal Sénégal dañoo am loo xam ni hmm. dañ ko bàyyi dañ koo fàtte hmm. mooy nitu yàlla yi fi nekkoon yi xam nga tey da nga wax benn da ngay wax léegi sama xel dem ci Serigne Cheikh waxam bu mujj. Mhm. ni Sénégal nañ ko sang ci ñaar boole xol yi wala ñu sang ko ci deret. Mhm. kon léegi nag booletuñu ñu yi kon sang nañ ko ci deret. mooy ndax xam nga mhm. xol bu sellee jinne xaju fa. dégg nga wax bi parce que xol bu sellee rek mucc nga ci jikko ji am na ay kilifa yoo xam ne kay yow rab da leen di jàpp bàyyi waaye mi mi xol bu sell bu ko teg ci kilifa rek ah bokkul ko am na loo xam ne suñu borom ma ko xam yaa ngi teg nit kilifa pourtant yaa ngi romb nit di ko bonal fekk xolam na mel a day taali yaa ngi romb nit yéem ko loolu fekk xol ba mara day taali parce que man jàpp naa ni nit tey boo ne salaamaaleykum dem di ko seet bu xam ni tey xam lu ci gën a yéeme Cheikh ku bëgg suñu borom yërëm la da yërëm jaamam yi dégg nga tey noo mel ci nit ñi rek la yàlla mel ci yow li nga damay faral di wax ni ku la ni bëgg naa ni bëgg naa yàlla xool ko ci digganteem ak nit ñi ni mu mel rek noonu la mel ni mel ci nit ñi rek la mel ci yàlla parce que suñu borom amul lu dul jaamam yi kon boo leen bëggee rek bëgg nga leen léegi nag am na jikko booy mel sa xol nu muy mel ak sell gooy sell di nga mucc ci jinne mucc ci cat mucc ci lépp mais di nga am noo xam doo ko mel yaay xëcc mu ngi mel acier boo dugal ci suuf weñ bu weñ bu mu romb rek këf jël si la jox xaas c'est que man problème bi mooy lan mooy sababu ray beeg viol bi bari waay gi tayeef la man a doon na kenn mënu comprendre daal ak marché yi tàkk ak marché yi tàkk ak kër yi tàkk waaw ak doo dégg ñu ne la am na ñoo xam ne bu ñu meree sànq gisul deret doo am jàmm doo koy dégg. te mhm. am na ñoo xam ne suñ gisee deret dal. Mhm. xam nga ni kon mooy li ma doon wax sànq. Mhm. mais jikko yi daf ci am solo ak yar yi. xam nga yar dafa am important ci nit. di lu war nga koo yar benn xeetu yar ba nga xam ne tey war naa jomba def lenn li wala mu jomba fekke lenn li kon loolu wàllu rey wi defe naa kilifa yi am nañ ci de responsabilité parce que boo gisee mooy. ki nga xam ne ki amul kilifa ndax kilifa waaw ndax ki amul kilifa fu ne lay dugg fu ne lay génn lu ne lay def mm. kooku tey jinne mën na koo def loolu lu nekk kon boo amee kilifa di nga mucc ci ci yenn yi euh, marché yi mm-hmm. tey wax naa la ko un jour ñii mm-hmm. la fi mu ne boo xoolee da ngay gis ni dem ci sëriñ ba sama place dama bëgg mu dox mu jëlu béjjën def xaati mu jinne dugal turam dugal ci béjjën ba wékk mm. keneen ki dem mu daal di dugal beneen turu jinne fay wékk loolu ah kii maanaam Cheikh mu jaay keneen keneen keneen place bu nekk benn tur comprendre nga. Ah. turu jinne fii turu jinne fii turu jinne fii turu jinne fii te ku ne xam ne ay jinne ay borom jinne justul. justul toog naa fi ni la. Mhm. billaahi am na ci ñoo xam ne ci ñoom luñ la wax du dëgg. du dëgg. Mhm. dañuy waraate daal. pas waraate dañu dañu wax mënut a wax lu dul dëgg naturel. Mhm. am na ci ñoo xam ne buñ xasee naan sàngara. mu mel nit ku naan rek ci mbedd mi. ay waxam njëriñ dóor su doon. waaw jinne te <laughs> jinne yooyu jinne boo gis tey mu toog sëriñ ba di seet ak moom jinne ba day naan. Mm-hmm. moo tax mu bëgg sobe. Mm-hmm. léegi nag jinne boobu daa jar a basé wu. Mm-hmm. moo tax sëriñ si fu ñu mujj toujours oo rek <laughs> wala bu ñu waxee mbir ñëpp di ko yëm bu ñu paree ñu fay seen téléphone loolu nag gàcce la. nit euh, xam-xam boo ko am dootoo basé ci jinne. doo basé basé ci raw xaan moo gën a wóor. nga basé ci jinne wala rab. mais bu ma la a état bi bu ñu jëloon àll bu bari jox la ko ne bu fi benn marché tàkkati loolu da nga ma ma ko. Hmm. ndax mënuma bu dama teg fa sama tànk hmm. <laughs> hmm. a gëm yàlla. mais marché bi gëmul ne tuxkat yi dinañ ko lakk wala ak courant yi branchement yi baaxul. mais loo gis dafa am sabab. tàkk-tàkk bi di dégg ñun lii ko sabab waaye am na mbir. dee sax di nga gis ñun la da feebar bi ko yóbboo te dee ñëw. loo gis ci àdduna dafa am sabab. mais tey marché yi loolu daf cee bokk. courant yi installation yi daf cee bokk. léegi lan moo tax marché bitim réew yi tàkk tàkk bariwul. maa ngi mës a dégg Giri Bordeaux. Uh-huh. xam nga bitim réew. dama koy faral di wax si. yow kii ah, Cheikh loolu wax Giri mu ngi lay déglu. dama dama dama déglu benn interview am. Mm-hmm. muy expliqué ci waa ji mu naan kuy defar lootu courant seetal ku ay ku professionnel. ku ay ku professionnel wax bu am solo la wax ci mm-hmm. côté boobu aussi. Ah. moo lay wan ni nit ki ci métier boo mën a nekk rek la ngay def na ko mën. na nga ko mën xam nga am amul fii. amul fii. fa xeetu rey ya mm-hmm. yi am bitim réew daa am fii. <laughs> foofu la gën a tubaab mer léegi xarul rey boppam rey kii rey kii amul fii sax lu mu bon ba kon bu ñuy jël naan tubaab yi defuñu lii. tubaab da ngay ci ku cat jàpp mu am alal am kër gu rafet am lépp dem rey bopp xaru ji waaw nga gis ci koo xam ne dem na ba am lu ne ci àdduna te du dëkk ak kenn. Hmm. waaw ñu nag loolu lan la kon. dafa nga wax ni nga dégg benn waay ku toll fële koo xam ne sax boobu ba xam naa feesul mun na waa sëñ tubaab yi. léegi ñoom duñ takk duñ def te te nga gis tubaab ñoom li ñuy def ci àdduna. Hmm. kon daal ma jox la numéro bi ñëwaat ci bagage yi. 77 bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi numéro ab laay joob xaas xaas. di tekki këram kenn du fa dugg di kaas xaas ku xamul luy xaas bis bu amee ñaanu xaas mooy balbat kiinam wax na rek mooy sotti na di loolu mooy xaas naan li nga bëgg yëg na ko rek dugg na ci nopp bi rek mooy sotti na xaas original bi nag lan toogal parce que léegi moom lu lu sotti bari borom bari na nag moom bari <laughs> xaas un deux trois xaas un deux waaw nañu ma bàyyi un bi rek ñu jël deux trois ba dix ba cent lu baax moom léegi xëccoo yeneen yi quoi mais xaas original boobu yàlla def na ko ba pare daal hmm. kon bi dal ku ne la mooy sëñ Abdoulaye Diop xaas nag te dawarul rans yur ay kër macha allah fu ko nee dem kër ga fees dell boo ko gisee mu libre rek du moom du original ko. waaw parce que parce que genre Moundiaye mën nañ tëb def def man dama sama kër. kan la léegi deuxièmement Moundiaye. moo waaw léegi Cheikh. Mhm. ba dee dafa am lu ma daan ñaan état. waaw. Euh, ci. waaw ah. comme par exemple dañoo nekk ci ñaari phase. Mhm. diggante médecin. moderne ak traditionnel yàlla duñ ci suturaal ci côté boobu mais ci ñun suñu biir nag daa am lu mu ci luñ ci bëgg ñun loo xam ni xam nga kenn nit mënul tëb organiser ko mënu ko ku ci nekk tey la ko sa borom may mhm. yàgg nañ ko li ma mett na dañ ko yàgg di wax te musul am mhm. euh, diwo man mhm. diwo raw sawul wax xam nga yi léegi ah. du weddi kenn dégg wax bi yow nga ñëw teg sa écran mbooloo mi yëpp ñëw taxaw ku ci nekk cheikh ñu def preuve yu leer nañ nañ man sëñ Ablaye maa ni barke Seydina Muhammad bu doon suba pare naa xam ne léegi ku nekk booy ñëw àndal ku la neex ngeen dem toog nale malade yi ñëw bu la neexee yéen journaliste seex loolu def ci ay jéego man kay mënoon ko organiser tegtal def ay jéego mm. te man pare naa luñ ciy financement koy def ah, yaa koy def barke yonent bi na sëriñ bi justement léegi sëriñ si fi nekk di faj yëpp mm-hmm. comme ci wàllu rab ñu indi leen ñu toog mm-hmm. yow di képp ku la netti man de Cheikh ma feebar wala leneen ne dafa am lu ñuy def faj boobu gratuite lay doon. gratuite lay kenn du ci fayeeku kenn ba ci ñu ngi ciy lancé waale message waa Europe yi. ku ñëw day doon gratuite. Mhm. ñu teg nii sëriñ bu nekk taxaw. bu la neexee nag indi na garab ya nga moom ya faj ya indi. Mhm. ñu ne la léegi ci mën nga koo faj nga ni waaw ñaata temps nga ni léegi léegi nii mën naa koo faj ñu la bismillah ñëpp toog. Ah, faj joni ñëpp toog. nga daal ni nii caméra yi bu fajee kooku. ngi bind ni kii faj na kii mu dolli li mu gën a dolli. mais ba duñ indi ñenn ñu théâtre rek ñëw taw wax wax dafa pare na waa tane naa tane naa yooyu. déet déet booba ndax déedéet déet moo fa lay waxee. Hmm. moo tax man la yow yaay tànn. ñun maay doog l'essentiel yow miy tànn. na nekkoon du du koo xam. du ku mu xam. Hmm. ci ku ñoo xam ne déggoo lu ma la wax. dañ lay woo la Cheikh lii nga leen léegi jour tel. ñëw leen bërëb sàngam gratuite lay sa bu nee la sëñ Ablaye sax ne ko gratuite rek mm-hmm. eh, keneen ki noonu mm-hmm. ñu indi leen teg ñu toog nii waaw billaahi wallaahi boobu ngay yéemu ca da nga gis sëriñ bu téye micro eh? wax ak nit ki wax ak nit ki di xool di ko xool da <laughs> day wax ba àggaf di ko faale boobaa nag nga xam ne mbir mi dëgg dëgg eh. wallaahi du loolu kon daal li waral ñu naan xaas daal déedéet man wax ma sama bopp mm-hmm. foofu nag laa bëgg a wanee ni léegi nag foofu Mm. numéro un deux trois quatre. fa lay leere foofu lañ koy sële sële li kon boog la di nga xam boobaa. déedéet Serigne Cheikh nee na. Mm-hmm. daf ne woon sëñ Moustapha ku ne xam nga kaman sa baay. Mm. waaye teewul sa baay ngay faral. Mm. bu boobaa nag wax ji foofu lay leere. caméra yi bu dëppoo. micro yu dëpp ñëpp toog ñu xam kan moo man barke Rasul eh, la man naam xeexu leen dara. jeex na. billaay. Mm-hmm. sëñ Abdoulaye Diop Khass numéro yaa ngi noonu 77. 101.

815 55 98 sëñ Abdoulaye Diop xaas mi ngi ci rond point Kaas ba nga fekk ko fa discours soxla wetu butigu soxna may bi nga jàdd noonu ak góor sec di nga gis kër gi nga discours soxla lu mu ci mën mu def ko léeg-léeg ñu bàyyi yàlla moo xam tëlewul dara te mën na lif sëñ Abdoulaye Diop xaas médecins yi da dégg ñu naan kii bëñ mooy mbiram kii ñu ne la nopp mooy mbiram kee ñu ne la tànk kee ñu ne la lii yow ñu bëggoon xam yow dangaa bokk ci ku ne mën nga lépp lan mooy sa spécialiste lan nga gën aay wala lan mooy sa domaine alxuraan luy mbiram hmm. alxuraan complet na moom lépp lu baax mënoon ko xool ci biir. waaw kon nañ ko jàpp foofu. déedéet yaay mhm. ci la ñuy sabab. ci ngay sabab di ci ñaan. di ci ñaan kon mënuñoo daq suñu ma fenn. Mhm. sànq ñu ngi koy xool rek mën nañ ci lu ne. Mhm. waaw kay. mais loo tële loo tële. Euh, mooy li ma xool xam ne mënuma ci dara moom tële naa ko dama naan la mënuma ci dara rek nga dem. ah léegi comme nit ki day dagg privé boo xoolee par xam ne mënoo ci dara tamit rendez-vous privé koy delloo xaalis. ah mais yàlla suturaal nañu nag. Hmm. li nga ciy tële bariwul de. Hmm. mais pour boo boo la waxee foofu rek mooy ki nga xam ni dem nañ ba mënatu ca. Hmm. wallaahi dañ naan la jëlaatal sa xaalis nànk rek. loolu lañ tëlee daal liñ mënul dara daal tëlee nañ ci sëñ Abdoulaye Diop yow xumbaay bi mbumbaay bi wut si la wàllum organisation ñu bari di la ci tegi tuuma ñàkk a jot téléphone ñàkk kii xultu léeg-léeg sax dem na ba ci am na ñoo xam ne que dañu ñëw ba sa biir xuloo tàng jër nga ne di xoolal lii tamit rab day joué foofu rôle pour war ne kii fii la war a fajoo mu ne naa ko jaxasee ak moom ba du fi ba fi talati mu ah, génn seeti fan waaw looloo ma metti nag waaw ndax dafa bari ci nga seex jinne lu garaaw la mm-hmm. da ngay faj nit ki mu la ni fii lay wéree nga gis mu daal di mu mu dem a dem a dem ba jour bi mu ko war a bàyyi mu mm. xabtal ndaw si laajali kii mm. am nañ daw soom fu mu jóge dafa sori ndeysaan dama bës ba sonn mm. parce que mu jigi day ñëw rek di jooy te kenn du ko def dara moom yaay ji indi malade bi xam nga tey koo xam day ñëw rek toog di jooy laajal ñii dama mujj affaire daf ma yéem te mu ngi jóge ba Arabie Saoudite te doom ji jinne bi ko jàppoon maare day taali xam nga jinne boobu nga koo da nga koo da koo laal dem sa kër mu ne la ñaar mooy am bu la wër na ngay kii xool des fois dama dal de ah. dama koy rey laaj leen kii mës naa faj koo xam ne ñoom bañ duggee ndox sax boo ko joxee da koy delloo ñu jàpp ni dee na ndox sax boo ko da koy delloo damm loos bi si di yëpp bàyyi ba ndaw si fi jàpp ni dee na bi ma nee ñuy jël leen ko dugal ko ci taxi bi dafa dugg ci taxi bi rek ni leen am ngeen sens pour wax la seeni pexe mooy li yi ni bëri nañ tey ñu ñu suul te deewuñu lu mel noonu kon a gaaw suuf justement parce que loolu ba ma naan ñi jël leen yóbbu bu doon beneen sëriñ sëriñ baa ñi ko yuuxu de jàpp ni dee na mm. fekk boobu man gis naa jinne bi ni mu demee loos yi mm. gis naa ni mu tëjee put bi pour ndox mu ñëw mu delloo ko kon côté boobu dafa mat nit ñi di ci bàyyi xel mm. deuxièmement nit doo mel ni comme nit man dama gëm ndaw bu bëggee gudd fan day wut gàllaaj man dama gëm loolu la nekk de parce que li tax ba sànq li tax ma wax ko mm-hmm. xam nga des nit di wax nga dégg mais ñaata nit ñoo nga dégg ñu damaa toppoon nangam rek. xaw ma woon yi bi nga gis ne après ni ko feebar def ak wala ni ko jinne def ak ni mu ko yàqalee àddunaam da ngay mujj yéemu ci sa borom. léegi nag nga gis mu door a bëgg a rectifié wu fekk boobu c'est trop lii dara nekku ci. demal xool lu sa yaram. ñu ne la léegi lii moo ci nekk. génne ko ba seet demaat te sabablu. Euh, sëñ Abdoulaye Diop Khass Tektal baa ngi neex bu baax a baax a baax abonné leen Tektal TV Sénégal ak Tektal TV simple sëñ Abdoulaye Diop Khass xam nga ku ne wax Evenberg xam naa yow moom doo seetaan football. Eh. maa ngi wax Evenberg Mario Götze Evenberg benn joueur bu yàgg la woon ñi seetaan football xam nañ ko. Hmm. bàyyi na. Hmm. Ah? jigéen bu toll ci aasu Evenberg maanaam mm. dem ba nga xam na que. Mm. ñaan lu pour wut borom kër mm. ñenn ñi doon seen situation baax. ñu am immeuble ami kër fu leen neex dem ci àdduna bi ñëw góor ñi ragal leen. kenn ñemu leen a laaj seen numéro. bu ñu dugg oto bi tëju kenn ñu fu ñu gisee kuy bëggante ñoom. ñin teg bët ñooñ doon seen mili morom yoo xam ne que ñu ngi xool ñeneen ñu leen gën a jekk. ñu kii leen ñu nekk ci problème te mosuñu am borom kër jigéen ñooñu laay ñëw ak jigéen ñi nga xam ne que tamit saar Mario Götze jàpp na nag xale lan rek temps bi dem ñu jàpp ne xale lan rek temps bi dem rek ban àgg ci commencé màgget nag commencé wut lu ñaan lu pour am borom kër ki am bor problème borom kër dëgg dëgg dugg fu ne ci àddina bi nga xam ne que borom kër lay wut léeg-léeg tamit ñu am ay natt yu leen di dal surtout ñi ciy ragal mooy mhm. maanaam diine ku baax rek laa bëgg xool mu sax borom alal mhm. ku man jaamu yàlla rek léeg-léeg ñu am xeet boo xam ne que day yëngutu ci diine wala xeet yu ku yëngutu ci diine ba nawloo ko kooku jël takk leen lekk seen i ginaar lekk seen xaalis sàcc leen abandonné leen bàyyi leen fa dem seeti kanam. dafa am acte bu dafa am acte bu ma metti ci ñun sëriñ si. Hmm. ci ñu dem ba nuñ ko baatale ci benn côté ci ñooñu. waaw euh, ci xale jigéen yi. nu hmm. manuma am doom. Hmm. parce que gis nga am na lu benn journaliste doon wax ci télé pourtant lu am la man dama koy dégg lu dul benn ñaar. nga dégg sëriñ bi ne la damay nekk ak yow pour nga am doom. loolu jigéen buñ ko wax nga def ko sa xel moo baaxul. dégg ngeen ko. deuxième deuxièmement sëriñ boobu bu nee la loolu la lay fajee li mu wax du dëkk. du dëkk parce que li tax mooy nit mënta fajee loolu ni c'est impossible mënul nekk. parce que rab ba bu ko neexee diggante ba sëriñ bay nekk génn na dem taxaw yi fële kon bu mhm. mhm. nañ yeewu. mais des fois li nga leen di yërëmee mooy. Mhm. seen soxla. ñoom jàpp nañ ni bu dee lii buñ ko defee wér rek nañ ko def. lii nag mooy njëriñal sëriñ yi. justement gën te lay wane sa xam-xam. xam nga ñi ñi ngay dégg ñu def penalty yëpp. danaa la fii la dëkkoon tuxu na ak yu mel noonu daal. déedéet des fois nga dégg ku la nii Euh, gëw ma sëriñ yi génn télé wala mm. gëw nangam loolu mm. kon moom wérul te koy wax des fois mu ne ci télé di liggéey kon moom lu muy def ci télé day yeete kon mën a naatoo këram rek yeete ba xam dinañ ko wane pour wax la nit ñi foog ñu yeewu côté boobu mm-hmm. parce que nit ki tey bu dee yow li ngay njariñ la mm-hmm. tey màggala gi nii képp ku màggalewul ci télé nga koy seetaane mm-hmm. kon télé njariñam bëri na sëriñ say da nga gis ku nekk ba Europe gis sëriñ ci télé mm-hmm. dem faju dellu te bu du woon sëriñ boobu loolu sonal ko kon njariñ kese moo ci nekk justement mm-hmm. justement kon nag ne nit ñi yeewu côté boobu te gën a góorgóorlu te xam ni mbir maa ngi Sénégal nag laay wax nekkul ci sëñ Ablaye nekkul ci kat bëri na ci ñu mu nekk waaye daal concours bi moom bëgg naa bu ñu waree jàmm ah. cheikh nga nga nga organiser ko. Ah, organiser grand théâtre laa fa yóbbu. xool xam nga lu ma ci métti. waaw dama koy wax pour yàlla xam na ko. Mhm. mu nekk loo xam ni lu amal important sénégalais yi lay dekk. Mhm. dafay mel ni genre wu kii boo xam ni tey. Gambie na mu ko doon defee. Mhm. fii di ko fa defee dëkk yu développé yu bari dañ koy defee la jékki-jékki woo seen i borom xam-xam. ñu ñëw ku ci nekk na commencé boobaa ñu dinañ ñu gën a respecté. boobaa képp ku ñuy xeex di nga ni tekk te xam ne ñii ngay xeex tey weesu nañ kenn mosu leen xeex ba am ci justement sëriñ te man man sax fii ne bu ci coole amee xam nga mos naa dégg benn sëriñ fi toog ne état bi déedéet am ci àdduna mm-hmm. ndax lu du moom ñoom xam nañ ñun xam nañ mm-hmm. waaw ñoom xam nañ ñun xam nañ te mm-hmm. li ñuy jëflante ci suñu biir ñun xamante nañ ko te xam naa ne bu défendre doon am man xam naa ne ñoom dañuy taxaw défendre ñu cent pour cent loolu moom man daf mu wér péng parce que dund naa ak ñoom xam naa leen mais ñu mënta àndal mooy ñi nga xam dañuy fo di taxawal di def loo xam nekku ci parce que toog naa ak kii toog naa mbuubit nag toog naa ak directeur santé mm-hmm. mu ne ma ñun ñiy faj waxatuñ leen de mm-hmm. mais ñi nga xam ne tey dañuy rey nit ñi mu ne ma des fois nga gis ci koo xam ne buy ñëw ñun buñ koy xool dañuy gis garab yi mu naan moo ko indil feebaram moo yàq yaram mm-hmm. garab yu xat euh, mu ne gis nga ñoo xam ne ci wàllu bët li mu doon faral di sëlmoo wala kii ñu ko joxoon moo yàq ay bëtam yooyu ñoom côté boobu te ku ne am na ci droit aussi mm-hmm. mooy li may wax rek nit ki lépp lu muy jox nit dafa foor na ko gëstu ba xam ko mm-hmm. def ko jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Khass mais ñooñu am problème borom kër nag ak ñi am problème mu doom ñii as bi sori noonu surtout ah, borom situation xam ñu war a takk bu fekkee ko am benn ni doo am ñaar ah, docteur Wade takk na ñaareel bu ñu bari defee na moom moom Rachid Wade moom boo defee noonu mu kii waaye. non xam naa doo kii waaw foofu <laughs> laa waxee waaw pour wax la. <laughs> ab <laughs> wax la. Euh. kon côté boobu. foofu lañ koy daal di aj. Hmm. waaye des fois nga gis ci ñu am àndandoo. Hmm. ak euh, yow yaa ngi ma a takkaloo ñaare sax yow ñeme na. kan kan doo man ñeme na. waaw. la. ah. la ilaha illa. Eh, takk. ma ne ma ne madame Diop foofu kon. nag jàmbaar la ah bëgguma <laughs> <laughs> non man. naturel jàmbaar la ko. jàmbaar man moom loolu wóor na ma. Mm-hmm. justement mais. yaa ko waxal sa bopp de. non man. moom Cheikh sama bat ci ci ci kaw. jeex mel ni kii moom mën naa benn moom. Sidi Wan Mun Njaay moom samay damay lancé soxnaam ci message bi mu bàyyi ko mu takk jaar moo gën. soxna mu bàyyi ko mu takk jaar waaw waaw moo gën moo gën benn bi. Mm-hmm. ndax moom moom nag xam dama koy yëpp. man su may jël exemple ci moom laay jël oh, exemple fi ne su may jël exemple di ko di xalab kenn moom laay xalab parce que man ñi may liggéeyal ñun ñëpp ay waaw samay xarit justement man gëwuma waaw non mbër bookul mbër bokkul mm-hmm. man gëwuma mm-hmm. euh, ñuy gëwma daal nit ki comme par exemple fii la ko yàlla teg rek war na déedéet man justement maak ñoom ñooy ah, lekkandoo laaj leen des fois salle bi maladie sax laaj leen koor gaa ngi nii damay naan leen ñëpp nañ yëg saal bi ci kaw ñun ñëpp ñu toog ndogu ensemble man loolu laa gëm non man moom sëñ Ablaye moom témoignage bi may def ci moom euh, képp koo xam xam ne suñu diggante kóllëre la kóllëre bi nag ni mu koy sàmmee man moo raw ni ma koy sàmmee wax dëgg yàlla man na maa toog diggante bu gàtt boo xam ne que man na maa topp xat-xati àddina rek dégguma ko mais moom moom mooy woo ah sama waa ji ci loo nekk nangam nemmeeku nit bu ne te nag nu may defal wax dëgg yàlla ñuy xam nañ daal yàlla bari na sutura xam na ne. Mm-hmm. te puis tamit am nañ ci tappale de nekkul def loo xam ne nga ne kii de maanaam day nekk ci liggéeyam bu ko neexoon bañ ko def. te man tamit nee naa leen sama soxla mbindeef àttan ko mais dëgg yi ñu ànde à chaque jour ñuy waxee nii man loolu laa bëgg ñu ngi ci bu baax a baax te wax dëgg yàlla euh, oyof na ku dem fa mu dëkk gis ña ko yaakaar ak lan ko yaakaare yàlla ko yàlla xeb gën a jàppale daal ci barke Sëñ Fall mu jëm kanam bu baax a baax sëñ Abdoulaye Diop Khass léegi dañu ñëw nag ci wàllum ndomba gi hmm. njëriñal ndomba gi hmm. li mu ci njariñ ci tënk àdduna bi sax xam nañ ko mais ñu xam hmm, ndomba gi ak ñu naan ndomba jaan yeeg teg naa ko ci suuf doonul jaan ak xeet googu yi man dama koy teg wala moo ko tegee ñàkk ko xeet googu waaw xam nga ni looy looy teg ñàkk ko kon bu doonoon jaan foo jëm boo déggee ndomba jaan xam nga tey Euh, boo ko xam nga dooy dégg yow sa bopp des fois ma koy jox ni dama koy jam. dama koy jam su ma ko jamee du ko doon. Mm-hmm. Cheikh imagine tey ku dem rek ko mu doon jaan nga ni bërët. Mm-hmm. foo jëm. bu xaroo sax doo jam kii wala mu dee. déedéet jaan bi moom du dee. Mm-hmm. déet waa ji laa bu tiitee la justement parce que daf ñoo mës a dal. moo tax ñu koy def. boo gisee sax fi mu ne des fois léegi damay wax ñi du ku nekk sax la ñuy ñëw 100 pour cent ñu jox la ko. déedéet parce que laaj leen man kañ laa gëj a defar xeetu ndox te fi mu ne laaj leen li leen ci sonal ci nit moom mii. sonal ci bay bëgg man kay wax nañ ma tegtal boutique may. waaw ba ansa di wan moo ndomba gi. prix jaxale naa ci daal. léegi nag. Mhm. Euh, li tax mu am important nag mooy soxla yu mu wund moo bari. parce que ma damay wax nii góor guy dox mel ni xottu wóorut. Mhm. góor dëgg. wallahi seex lu ko war a dal war a koo bett. Mhm. benn ki benn waaye dafa ni dafa xëy taal oto tàkkul yaram bu diis mu toog. forcé forcé yaram bi gën a diis mu tikki nomba bi yàlla seede na ko ak yonente bi taal oto bi dafa def soog ak gud pour wax la xaw ko kon bettu ko woon mais jox na ko ay signes yoo xam ne xamu ci dara pour wax la kon nit dafa war a yeewu ci côté boobu hmm. du boo déggee gàllaaj lu mel noonu lay jariñ hmm. parce que am na gàllaaj boo xam ne tey par exemple yaa ngi ko tegoon fee jékki-jékki xool gisoo ko am na lum la am na lum la tegtal mais ñun des fois nag ñaar fukk ya ngay amalay sonal. <laughs> Ah. mais góor dëgg daal du lu xew rek mu teg ko ci ndogalul yàlla parce que damay faral di wax ni. Mhm. Euh, nit ki nga xam ne tey bàyyi na ba oto bi di jàll mu daw jéggi bu ko oto bi mbëkkee moo ko yóbbu boppam ki jël paaka jam boppam dafa xaru. Mhm. léegi ki takk mhm. nga jël paaka jam ko duggul bu fa tul ba nekkuloo nu muy def. day dugg léegi bu duggee loolu dafa fekk ko ca. ndax nit du bàyyi boppam comme noonu. loolu lay lancé nomba gi. kaaraange la. kaaraange la bayre Mm-hmm. ak it euh, maanaam day yokk fit. day yokk fit boo ko amee daal amal fit. amal fit la neex defal. léegi euh, jaaro bi. jaaro bi moom dafa mm-hmm. dama ni la damaa jël lépp tënk ko mm-hmm. ci biir. ku ko am daal complet la. la moo tax muy ànd ak ñett càngat yi di ànd ak mbiru jinne. boo déggee na man la sax juróom-ñaari yoon. mais nag ban signe ku am kon ku am jaaro bi doon ko takk mu rëcc benn oto jaar ca. jàllum nu mu demee ba fekk boobu la sangoo ngi ah, sa yaram yaram dëgg mbiri mbiri yi sax li ngay mm. waaw mbiri dëgg dëgg sax li ngay sangoo am na ci important mm. côté boobu na ci nit ñi bàyyi bitit bi boo xëyee sa bopp toogal toogal boobu moom macha allah macha allah boobu moom yi mu def yi ci xeetu homme d'affaires yi daal waaw waaw moom yi mu def comme ay jéego xam nga ci dara conteneur yi tag mm. ci port bee kii xeet yu mel noonu waaw waaw mu am béjjën bi yu rab cat yaram buy metti euh, ngóora yëpp moo ngi tegtal boutique derkale wetu station xaar yàlla ku taxaw fi naan euh, seer na seer na man nag benn affaire dafa am gis nga Sénégal bu nuy naxante. Hmm. boo doon yoree 4 millions di jënd oto 5 millions duñ la ko jaay. Hmm. te xam nga ne 4 millions baax na. Hmm. léegi sëriñ bi nag nga bëgg a ñëw ji indi ci benn 300000 wala nga bëgg ci lijjanti sa àddina. ba pare ne seer na côté boobu moo tax seer du ma ci jotee kenn. li ma bëgg a xam daal mooy nit ki li ngeen waxante. lan la. loolu ñu teg ko ci yoon bu baax a baax. sëñ laa ñëw xaas. léegi Coupe d'Afrique bi laay ñëwaat ak yow ba léegi. waaw Sénégal jël ko mën na nekk ba léegi lu ma la ci wax fi mu ne de moom waxuma la ci. ndax xam nga toog fii rek moo tax ku ci moytuwul climat caméra. Mm-hmm. toujours ci musiba ngay dëkk. Uh-huh. parce que su ma toogee fii tey nga wax ma ma wax. Mm-hmm. après loolu la ñu dagg ni sëñ bi lii la wax. Mm-hmm. nit munta garanti lu mu seetul. munta wax lu mu xoolul. lu dul boog bu ko waxee ci nafsu bakkanam rek la ko waxee dara tëggoo fenn. toog rek caméra yi di waaw dinañ gañe. billaahi fii la ñuy toogaat daggaat ko rek daal di sëñ bi waxoon dina gañe loolu moom du xam naa ni. match bu amee loolu mën waaw léegi wala nga continuer bu amee comme na ma ko doon def man naa la ni Cheikh waaw nga ne ma man lii la de wala match bi du baax am na match boo xam ne sarax bi ñu génn wax naa la ni baaxul kooku war woon génn sarax boobu mm-hmm. ndax tey dem na ba yow yaa ngi xëcc musiba mu jëm ci ci yow te nga war koo dàq xoolal li ma la wax ci nit gi nit ñi eh, Aliou Cissé baax na Augustin Senghor mais ñoom pour nga ci dara jublu ci di de xam nga tey te yow nekkoo fi ay dem ak yooyu yëpp sa yoon nekku ci moom. man looy wuti da ngay seetaani mat dem ba ci gi yor ñoom sëriñ si daal. <laughs> ñu yàq a <laughs> mm-hmm. bu dee fii la mbir yi nekk ñaan. Mm-hmm. lu tax ñuy nekk fii di ñaanal ku nekk fu ne ci àdduna. Mm-hmm. yàlla ji ngay ñaanee ca. coupe d'Afrique waaw waaw moo nekk fii mm-hmm. léegi daa jar dem dagg toogal sa néeg ñaan ko dëgg-dëgg sax pour man doo fa dem mm-hmm. hôtel yi boo fa demee taal sa kilim boobu sëñ bi te kaavax la de billaay caméra fa waroon am rek si seen seen wane nelaw de jigéen bu taaloon caméra ba toog seen télé boo ma ah. di met xam fi ñu seetaanee match bi boo may dañuy bi yeewu jàpp te déet benn benn waay dafa nettali non non ah. non samay xarit lañ ah. dañuy waxtaan mm-hmm. dafa benn waay nee Euh, euh, dafa dafa dafa yóbbu benn sëriñ moom ko nettali. Mm-hmm. nee na bi ñu demee nee na nekk sëriñ bi guddi gi moom ci whatsapp rek lay nekk. whatsapp bi lay xale jigéen rek. <laughs> nee na li ko li ko xamal day def heure bi day fekk sëriñ bi téye ni téléphone bi bu ñëwee rek muy mel ni kuy kii ba ba mu kii comme seen këru heure bi rek. Ah. mu def pexe pour déglu ko nee na sëriñ bi guddi gi ba bët set. vocal ak téléphone whatsapp rek. photo bu maa ngi Paris maa ngi tëdd maa ngi def lii maa ngi def lii loolu la sëriñ bi wax ba pare ni ko ni ko rawaan yi dañoo mujj tuxu nekkuñu fi pour wax la côté boobu nit ci nit ñi di bàyyi xel la ngay ñaan bu dee fii la ne mm. kurus gaa ngi fi der baa ngi fi wallahi barke alxuraan boo ci toogee loo ci bëgg a gis mën nga ci gis loo mënta def fii def fële mm-hmm. yow foo xam dañ naan la fii la nga dem dugg mu doy na war daal doy na war kon lu bokkut ak nga nekk ca salle de bain ba jàppalee caméra yaa ngi lay jël. xamul booy nelaw solution bi mooy. waaw na na na na ministre des sports dajale. Matar Ba yaa ngi dégg Mbaye Sakh Diop. bu dajale sëriñ Sepp. Mm-hmm. ni leen waaye yéen lu ngeen laaj. Mm-hmm. pour coupe bi dina ñëw. Mm-hmm. kii ni man lii kii ni man lii buñ leen ko joxee dana ñëw ngeen waaw mu génne xaalis boobu teg daal jël papier blanc xaaral rek bind seeni tur ni ku ne signal nga signal léegi bu coupe bi ñëwul nooy def ndungu sin lan kon da nga ciy sori ci puusaat xaalis bi naa ngi ko defaat ñu sori si yow kon dégg ngeen ko. non solution loolu la amul leneen solution bi loolu la. mais loolu yow nag la d'accord nag d'accord nga. déggoo de dajale sëriñ sëpp. waaw non non comme léegi ñu bàyyi sëriñ sëpp ne leen yéen ñëpp waxloo leen kii la waxloo. non xam nga sax bàyyi la ak équipe bi wala day dis. du ma déggoo la ma la. billaahi suñ ma ne woon nangam lii ci man ma xool xam ne du ñu def du ma ci dugg. Cheikh man sama dignité ma ëpp la. ah kon yow mënoo dëpp defet nu déggoo ma de du defet yëpp lañ mën a dëpp am na defet yow boo ko naree dëpp dañ lay dëpp yow dem suuli <laughs> defet bi continuer sëñ laa jëm xas léegi nag équipe bi bu ñëw jëmm sama copain saa yi baane saa man nag bëgg naa ñëw ànd ak sëñ laa jëm xaas ñëw def si émission Liverpool de parce que nag ñi ngi sant di gërëm yëpp noonu ko am na xéwal gi ñëw rek saa yi maane euh, li ñu koy sante di ko gërëm dama laa mele mere woon ba nga raté penalty ba booy dóorati penalty nay dal bu baax te sec te jub ci yi Euh, Sadio Mané Diao Baldé Keita lu dul taal suñu kaa moom mën na leen ko jéggal moom yéen yéen moom parce que yéen ngi jëriñ seen réew hmm. mais ñeneen ñi ko ci taal suñu camp Kalidou Koulibaly yaa ngi léegi ku ñëw kenn personne ñëw nag bëgg ne la coupe bi moom damaa bëgg a ràññeeku nga defal ma bayra bu saf sapp mu yëngatu ko match yëpp muy toj loolu moo mën na nekk xanaa bayra moom ñoom hmm. dañ koo defal waaye xam nga def lu baax rek bayra la si hmm. yow Cheikh mais nag damaa d'accordul aussi sëriñ siy joxe benn ay saako ceeb wala leneen. Mm. di ko filmer man nanguwuma loolu. nanguwu loolu ñi nga Cheikh lu baax. Mm. lu mu ëpp sutura gën a gën. Mm-hmm. lu baax lu mu ëpp sutura gën a gën gis nga ka ngay dimbali bu sañoon doo ko dimbali. kon boo ko noree dimbali weer ko amatul njariñ. amatul njariñ. Mm-hmm. parce que foofu tamit ñaari côté dafa nekk yu jaral lijjanti mooy ñuy ut ñuy ut ñuy ut ñuy ut buzz parce que man jàpp naa ni wallahi barke yonent bi li ngay def man ko am na ñuy joxe lu ëpp loolu par jour mm. te barke Seyduna Muhammad duñ ko wane caméra sax bu ko naree duñ ko bëgg parce que yàllaa tax ñu koy def. kon lu yàlla di tax lu ci caméra di uti. loolu moom dafa nekk dafa am ñoo xam ne que mën na ni def pour keneen roy lu baax parce que bu dee keneen roy lu baax lii. Mm. mën nga ko defee neneen. mais pas nga weer nit ki boo xam ne benn saaku ah, ceeb nga ko jox mu am fukki at bi ko xool ci saaku ceeb boobu amul benn njëriñ. dañ koy suturaal. baax baax léegi kon euh, saa imaane mën a ci ballon d'or ba mag bi nag man nekk lii mu lii mu teg euh, li mu teg tànkam mm. bu ko tekkiwul mm. tabax yi juma tabax yi juma clinique jàkka ay indi ay courage yi jënd ay kéeg yooyu waaw bu ko bàyyiwul dina xam ne ñaan yëpp sunu borom ay nangu te fa nit ñi dëpp seen jër di julli nga suturaal leen noonu ba ñu dëpp seen jër julli buñ la fa ñaanee lee yàlla dina sotti billaay te gis naa benn vidéo ndekete jàkk ba mu defaroon la ne nii des na mu gën di defaraat kon yow Sadio Mané yàgg fi te wér Diao Baldé yàgg fi te wér Gorgui Sy Dieng yàgg fi te wér Ablaye Dia bu Sénico li mu def ci alxuraan yàgg fi te wér sëñ Mountakha Mbacké ngan di maamu université bi nga xam ne que bu benn fa la murid yi jaare wala bépp jullit di tedd ci xam-xam yàgg fi loolu te ànd ko wér am na ku dese ci Cheikh Niass jumaa ca Walfadjri ak jàkka yàgg fi loolu te ànd ko wér képp kuy def lu baax daal Youssou Ndour yàgg fi loolu te ànd ak wér moo Wally Seck ñoo jàppale ña lakkle ca PDRG nag Dakar waaw kon kuy def lu baax rek nan la sant gërëm la kuy def lu bon nag yàlla na la yàlla soppi bu baax te nga doon yéene bu baax kon di def sëñ Abdoulaye Diouf Xaas tamit yow moom yaa ngi def lu baax de ci ndogu ci jàppale nit ñi ci euh, gis nga maire ba nu mu tudd Ndiagne Diop ñëw naa ci benn euh, conférence am say dëkkandoo yoo xam ne que dafa am lu mu doon taxawal loolu la nati la sax nga jàpp ca bu baax sax loolu conférence la conférence bi man ci yooyu laay ëpp mhm. lu may gën a mën a dimbale nit ci wàllu yooyu ci parce que man dama gëm ni man damay dem daayira mhm. parce que da euh, di sax léegi mhm. liñ ko lu may mooy da ngay ñëw daayira la nga bëggoon a toog déglu dootoo ko man léegi ñun jàpp nañ ni fu ñu dajeeg ñun rek war nañ ñoo di soxla loolu nag coono boobu lañ am léegi parce que dama koy wax ni des fois ma toog sama buntu kër damay xëy ni Sidi mii tey fii laa am envie toog laaj ko sama toog yi damay bëgg a daw duggaat parce que doo nooyi sax problème boobu la ñu am ak ni nga mel ak taalibe yolaankat yi xale ñoom laa mën a yeb sama oto yóbbu leen sama bureau. Mm. ñiy waxtaan xam nga lu tax. parce xaw ma li ñu doon ëllëg. seex ñun xamul lu ñu sonal. Mm. da nga ji koo xam ne wóor na alxuraan yaa ko tane foofu mu jàpp ni moo la gën. Mm-hmm. ñun loolu mooy suñu problème ñun Sénégal. Euh, man su ma sañoon. Euh, bañ na ko fa laajee ñi mënu ma lekk man kese. mënu mm. ma toog man kese mënu ma parce dama jàpp ni nit ki foo mën a toog rek war nga toog say am di jàmm kaf reetaan comme na ma ko doon defee. laaj leen ba un jour jot na ma dem ci mayga bi nekk sama koñ. Mhm. mayga da ngay dem mayga. <laughs> bi ma demee. Eh, Thierno <laughs> mayga ah. bi ma demee. Mhm. mayga bi ni ma. Mhm. léegi maanaam dama koy defar nga yóbbu. waaw dama koy def ci palaat. ma ne ko déedéet defal ci palaat ma toog fii. may bi mayga bi def ko ci palaat bi. waaw bi ko defee ci palaat ma toog lekk di ko fay mu du jël. ma ne ko lu tax mu ni moom ñëw gi ma ñëw ci may ga lekk rek da koo neex laajal ñi dama nga demee loo commandé woon omelette wala brochette non dama commandé kii spaghetti spaghetti brochette bu ànd ak pomme de terre waaw ah. xam loolu dama ko daan lekk lu bari <laughs> mu def ci mami bi waaw bëgg mu sa mu def ci ak omelette waaw loolu laa jaxase woon mm. mais bi ma koy lekk damaa kontaan mm-hmm. lu bari mm. comme ni ma koy defee xëy ni la léegi damaa nam mu super wax naa ne ko bii sax def waaw dama koy def loolu mm. mais su may dugg léegi ca kanam laay dugg rek toog mm-hmm. loolooy àdduna dara jaru fi yenn yi ndax loo fi war rek di nga ko wàcc ñoo fi mel rek nit meloon na ko oyof mooy lépp loolu laa gëm euh, bokk na ci ji defari jikko te mm. ñëpp delloo seen xel foofu xam ni nu la nit ñu nawee rek sunu borom la ko jox bu ko sooboon la ko jox kon nag wàcceel sa bopp mel ni ñëpp daal su def laa jóg xaas waxtu weenu dab looy tàggoo bu dul tàggatoo xaas couture moo ñawati lii de wala xaas couture rek waaw joxeel seen numéro ko 470 44 54. ah boobu waaw <laughs> xaaral ma dox fi la ne ñu jox ko bi la temps. waaw boobu ku ci ku jaar ci xaas ku ko jaar ci kooku dem ci xaas kuti. Ah, kooku léeg-léeg day saturé de moo tax. waaw mais mën nañ jël boobu rek <laughs> waaw d' accord léegi koy sant ak gërëm. Euh, ñoom maa ngi sant euh, ñi may liggéeyal. ñi lay liggéeyal. te xam ni vraiment metti na aussi. Mm-hmm. ndax amuñu noppalu. Mm-hmm. Cheikh da leen di yërëm. Mm-hmm. wallahi barke yonent bi koo ci woo fi ne ñu may liggéeyal ñëpp koo ci woon waxtu wi mhm. ñun la ki ngay woo mu ngi jokkoo boo de xëyee dem nga fekk leen fa ñu nekk la ñuy daj maara day taali mhm. ku mel nii Moussa Moussa euh, Pape Sène Pape mbër nag bokkul mbër bokkul pour waa Europe yi nga xam ni dañoo jàpp ni mbër ah. mu ngi ci sa kii mbër moom bokkul génne naa ko ci pour nit xam loolu ah. euh, ak mbër ak Ceneba la. Ceneba kooku hmm. léegi moo yor ticket yi. moo yor ticket yi ak Baye Sall. Baye moom moom moom bokkul day nelaw rek. day waaw Baye Sall. waaye ah. maa ngi gërëm ñooñu. waaw te gërëm Sidi moom moom du takk ñaareel. Hmm. Moon Ndiaye noonu. Moon Ndiaye Sané. moom am na ñaareel. ah Pape Sène na waaw docteur Wade yàlla na ko jig. waaw man mooy sama garde corps. Hmm, Sané moom dama koy yërëm. ak Papi sànq tëdd moom dara duma laal. sànq sànq tëdd ma duñ tëdd. Mhm. sànq wala da leen di yërëm su ma bunt sax boo ma koon tijjee nga gis mu jub ndeysaan xam loolu dafa metti mhm. te ma du ma nelaw guddi mhm. kon côté boobu àq la maa ngi ñaan sunu borom mu gën ñoo boole musal ñu ci luy lor parce que man xaw ma rek nii la rek ma jël ñeneen góob ma loolu man li ma yàlla booleel démb la may booleel tey moom la may booleel ba ni may faatoo daal loolu daal lu jërëjëf mbokk yi seetaan seen émission tegtal yoon bu mujj ci biir émission bi sëñ Abdoulaye Diop ko xaas jox nañ ko ataay mi ngi naan waaw ñaari kaas la ñu naan loolu maa ngi jaajëfal tamit euh, waa bitim réew ku ci mel ne Mariama Danfan Mariba Genève Mohamed Diallo Baye Fall kële ci Ababacar sila ak Adja couple ba ci Texas ak ñoom Fatou Diop ku nekk am couple ba ci Texas kan ah Babacar Sylla. waaw ko rek. waaw ah, Babacar Sylla waaw. waaw da nga naan na <laughs> ñoo ko tagal. non mais Texas. waaw dafa nekk Texas. ñoom dañu doon nëbbu du koy feeñ. déedéet mais ah, nag kon maa ngi. nuyu diw ak diw ca Texas voilà Babacar nee na mënatu laa jot de sonn de. Hmm? Babacar nee na mënatu laa jot de. ah sama xarit neen am na seen boo ko digoon pour mu takk ko ah moom Babacar nee na nga boole koog man mais mënu laa jot ba léegi. wax dëgg de waaw. waaw moom sama xarit la moom sa xarit eh, xam na ni maa ngi koy ñaanal nii à distance. xam na man xam naa. <laughs> jeex na kon hmm. ah, sëñ Abdoulaye Diop xaas kon di jaajëfal tamit euh, képp kuy seetaan tegtal ku ñuy wax euh, Diarra Wade As Wade di jaajëfal tamit Rasul Wade góorgóorlu. ak Ibrahima Diop a Diop. Moustapha Diop eh, waaw a Diop waaw daf may wax ni moom man sëñ bi say affaire yëpp ci tegtal laa koy xool ndeysaan ministre de la santé bu gaa bi Omar may wax ni mhm. moom bañ na ko ba bu ko nit ne sëñ Ablaye mu la yee eh, dugal tegtal dugal tegtal <laughs> waaw kër léegi bañ na ko nee na nañ koy woowe Omar Sy xaas Omar Sy xaas waaw moom ministre de la santé bu Gambie moom loolu la tudd léegi pour wax la ñoom ay jàmbaar lañ ñu ngi Gambie it ñu ngi déglu tegtal bu baax waaw Gambie yi ñëw sax kon waaw waa tegtal mais tournée bi ñu de kañ ñu ngi wàcc ñu ngi ci bu ñu waree jàmm numéro yi mu ngi fi dinaa la ko jox waaw képp ko laaj Cheikh Talif numéro yi rek waaw dana la ko jox incha allah incha allah boo dee ñu gisaat bu ndaw ñu joxe numéro yi sax def ci émission boo xam war nañ nag ñëw nañ waaw ñëw nañ def si tegtal bitim bu baax a baax a baax incha allah incha allah 77 101 21 57 77 101 21 57 beneen bi 77 262 52 95 77 815 55 98 77 815 55 98 sëñ Ablaye Diop xaas nekk ci rond point kaas ba numéro yi nag bay ba nga hésité léegi léegi lay jékki-jékki teel ko boppam une semaine boo xam ne que kenn du ci wuyu moom mooy wuyul boppam. Hmm. mais vocal yi mu gàtt appel yi mu yam ku nekk bitim réew. waaw nañ ma dimbale ci lool nag. moom dafa nga jëkk vocal 6 heures de temps. foofu da ngaa bëgg a déglu vocal boobu déglu bi. waaw day metti bind bi sax a tane. Mm-hmm. Euh, bind bi moo tane waaw boo bindee ja jànguñu. waaye dañ seen français bu xóotee nag doo ko mën a lire. ah nag. xam nga yow bind nañ benn sànq mënoo ko. <laughs> waaw déedéet li bind loolu kon dafa xaw a bind bi moom li ñu la bindal sànq daa simple <laughs> léegi nag côté boobu moom maa ngi yow bokkuñu côté boobu Cheikh. <laughs> mais yow la ay ñoom ran yooyu yaa ngi ci yoon bi de. ah maa ngi ci tegtal bii moo ah. koy indi rek. moo koy indi leneen nekk. barke rasul xas. bi daa yemal émission bi ñun àndaloon Mohamed docteur Wade euh, bu Derklé foofu laa yem. Mm-hmm. monsieur chef courant. Mbaye Massamba Diop bu Derklé village numéro 60 surtout Massamba Diop nekk fële ca Derklé ak Kër Matar Diop. Petit Sow Gaw Sow sans domicile fixe fu ne koy làmb daj ko amul kër gu fixe daal day dëkk fu ne. Sidi Wane nekkoon fi Maodo Ndiaye di suyekatu théâtre di lépp sëñ Abdoulaye Diop Khass ci équipe bi la bokk. ah non non du lépp de. ah, ah du lépp. boo di lépp sëñ Abdoulaye Diop Khass ah, nit day ne coof. bërëb ah. sànga tuuti la ci sëñ bi mooy waaw kay mooy sama secrétaire sax. waaw mooy secrétaire sëñ bi waaw allah. moo koy defal yenn yëf euh, nekk ci réalisation bi. Tektal boutique Dame Diop nekk fa ak Oumou Ndour numéro ba 77 108 51 nekk sëñ Ablaye Diop xaas ki ma sonal nag man Sayer Fall la Sayer Fall nekk fële ci Espagne sëñ Ablaye nee na tekki woo dara kon yàlla nga tekki na laa la ñu woon tekkiwul dara ah, lii nag tekki <laughs> ñaari yoon dina waa waa bitim réew ngir yàlla diggante bu bëri bi ak côté invitation yenn yi doy na man kuy def rek defal ko xamme naa nee naa la utalal sa bopp déet dañu am yéene waaye utalal sa bopp rek <laughs> ah, da ngay utalal non man jot bi laa bëggul sax mais moowee jot bi mooy loolu pour lan bi la non non dafa am ñoo xam dañ lay dig àddina ak li ci biir billaay wallaay. Ah. àddina ak li ci biir. dañuy am yéene bi ndeysaan. dañ koy am trop trop mais. Ah, mais noonu bari na ñoo xam ne ko sant daal gërëm bu baax a baax. waaw tegtal ñu gën ko yaatal xéwal dikk loraange def. jërëjëf.